alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin allahumma akhrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaina rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 te jéggal ñu sunuy rëcc rëcc ñoo ngi nuyu sappe almisbaax yi yëpp di leen siyaara bu baax ñaan borom bi subxanahu wa taala mu fay leen taxawaay yeeg kóllëre geeg bàyyi xel gi nga xam ne yéen a ngi koy bàyyi xel jotaay bi di ñaanal bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi di leen massawu itam di ñi nga xam ne ñoo tawat te nekk ci hôpital yi ak ñi tawat nekk ci kër yi. yal na yàlla saafara leen ñi génn àdduna itam ñoo ngi leen di ñaanal borom bi yërëm leen di masawu ñi nga xamante ne ñooy seeni mbokk suñu waxtaanu almisbaax démb maa ngi tàmbali woon di waxtaane lu jëm ci wàllu sëy nekkoon ci yi nga xam ne moo war ñaari way dencante yi waaye su ma ko jëlee ci beneen angle bu gën a yaatu dañ koy tudde rek atey sëy yi axkaamu siwaaj ndax ab diggante la boo xam ne day def jeexital yu bari ci pénc mi ak yi nga xam ne moo fi am bari waana lu naqari ci barabu liggéeyukaay bi te ca sëy ba bàyyi ko bari waana ay sikk aki i jikko ak i yu neexut ka ko jikko woo wala ñu muy jëflanteel te fekk ca sëy ba bàyyi ko lislaam jàngale ko wommat ñu ci waaye wax ñu niñ koy defee ba noppi nag di ci soññee saa su nekk ndax li ci nekk ci yoo xamante ne day yombalal nit ki ak dugg aljannaam te loolu mooy càkkutéef li sëy dafa mel ne boo ko doon wax da nga naan mooy pas-pas bi nga xam ne mooy daganal ñaari way dencante yi mooy tax kenn ku nekk euh, dagan ci sa moroom dagan ci sa moroom li nga xamante ne buñ ko waxtaanee woon wala ñu séq ko am ca bàkkaar liy tudd sëy mooy ñëw yoonal ko ba nga xam ne buñ ko waxtaanee wala ñu feq ko léegi tiyaaba lañ cay am tiyaaba lañ cay am nga xam ne dafa bokk ci euh, ci fas-fas yi nga xam ne moo gën a moo gën a noobul moo gën a rëy moo gën a tedd waaye moo gën a dëgër moo gën a dëgër te mooy tax kenn ku ne ci ñaari way dencante yi doon am mbubb ci moroomam doon mbubb ci moroomam suñ borom ci waxinam waxinam wu xóot wi muy wax ak lim ciy dëxëñ euh, day wooye borom kër ne ko yëre nga ci sa soxna jël soxna ne ko yow itam yëre nga ci sa borom kër waaw yëre nga ci sa borom kër hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna noonu la ko waxee ci suratul baqara yàlla nee na soxna yi ay yëre lañ ñeel seeni borom kër boroom kër yi itam ay yére lañ yéen itam ñeel seeni soxna ku ne xam ne yére njariñam lim am léeg-léeg sa yaram bi mën naa am am na ay liggéey waaye sa yére bee tax kenn du ko gis ndax yére bee la suturaal moo muur waaw yére danga nga gis ku tuuti lool sax sol yére yére bi may ko jëmm waaw da gis yére boo xam ne yére bu jekk la da nga gis yére boo xam ne yére bu jekkadi la yére bu dagg fu ne mu fuq fa kon mën naa am am na soxna yoo xam ne ay yére yu fuq lañ am na jëkkër yoo xam ne it ay yëre yu fuq lañ wala yëre yu furi waaw ah, waxinu alquraan mel noonu ci boo ko yaatalee hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna nga xam ne eh, xaw tuuti kon nga ne ñàkk ko wóorut waaw kenn ku ne ci ñoom ñaar muy góor ak jigéen dañuy soxlante soxlante ci yu bari yoo xamante ne la ñuy waxtaane ci wàllu bànneex lu ci am solo la waaye yeneen yu ko wër daa gën a bari daa gën a bari daa gën a bari ci kenn ku nekk fu mu mën a moroomam ak la nga xam ne moo cay sosu ba noppi sëy day sàmm aw askan day sàmm famille ndax ci la njaboot di bàyyi ko njaboot yooyee di takkante di takki di am ay njaboot loolu nekk loo xam ne lu yaatu la lu yaatu la moo tax lislaam eh, bu indee ab sëy mu daganal jaxasoo gi nga xam ne moom lañuy jaxasoo dëkk gi nga xam ne moom lañuy ñu bokk dëkk waaye kenn ku nekk nekk ab nooflaay ci moroomam kenn ku nekk nekk bànneex ci moromam moo tax say wërta doon ay problème bay doon stress ci kenn ku mën a doon ci ñoom ñaar sëy ni nga xamante ne bu nit di bëgg a dugg ci sëy ñi koy tiital ba mel ne koy xare ji wala ku jëm ca guerre ba sëy sëy sëy boo xam ne da ngay mel ne ku ñuy bëgg a ji la ngay dugg muñal sëy neexut sëy nangam sëy nangam loolu de dëgg la am nag muñ sëy neexut waaye nag loo xamante ne nii moom ñaar ñi bëggante te bëgg a ànd ñoo ànd dëgg nag jamono ja nga xam ne da ngay yàkkamtee jot appelam bu dee ci téléphone bi wala nga yàkkamtee gis jëmmam wala nga yàkkamtee gi waxam wala nga yàkkamti koo gis loola bu dëkkut sëy bi bànneex la war a doon kenn ku nekk noon doon bànneexu moroomam ba du ko soxlaati feneen moo tax sëy almisaaq la alxaliis waaw ak buum la kóllëre la gu dëgër goo xam ne borom bi da koo barkeel ba noppi dafa bëgg ñu saxal ko dafa bëgg ñu saxal ko dafa sib bañ lool ñu koy firi ci lu dul lu mënta ñàkk divorce neexul yàlla gënalu ko lu dul lu mënta ñàkk lu dul lu mënta ñàkk divorce moom ci gën a metti la bokk ci gën a soofit la bokk yàlla nañ ci yàlla musal waaw wala bokk yàlla na leen ci yàlla musal yéen yàlla na leen ci yàlla musal te musalaat ñu ci ñun eh, buñ ci àggatee ndax ci doy waar la bokk léeg-léeg doom day am àqu ki nga ko tànnal ne ko moo la jur nga téye ko ba bu màggee ne an sama yaay nga ne mi ngi nii waaye eh, yaay it dafa war a téye baayam ba bu doom ji màggee mu ne ko mi ngi nii ndax yaa ko tànn yaa ko tànnal divorce yaa ngi eh, perturbé xale yu baree baree bari rawatina ci dëkkitaax taax yeeg boo demee bitim réew ak yi nga xam ne moo ci aju xëy na bu dee ca suñ mag ña eh, suñ woy jur yi seen dëkkuwaay ak kilifa yi ñoom yooyu mën naa am te du feeñ ci ci wàllu yar bi ak ki taxawaay yi ndax niñ koy jëlee moo tax ala kulli xaal sëy daal buum gu dëgër la engagement bu ñaari nit di séq sëy ci gën a dëgër moo tax kenn du ko foyee li xale yi xewal léegi ku dugg ci sëy bay boon boo ko gisee nga ne ko kañ nga tas wala nga wala nga teey ci booy laaj sëñ ba ndax daanaka da ngay laaj mun la eh, tàqalikoo naag moom ni nga xamante ne nit day liggéey ci ab entreprise ne damaa am contrat CDI moo tax euh, mënuñ maa dàq dàq ma yombut euh, sëy moo gën a dëgër contrat CDI boobu waaw ni nga xamante ne itam euh, démissionné ca mën nga caa fay ay ay nangam nangam ba nga xam ne yu bari nga di ko moytu sey moo gën a dëgër daal laa bëgg wax bépp engagement buy dox diggante nit ak nit mooy li nga xamante ne moo ca gën a dëgër sëy mooy mooy la nga xam ne moo ca gën a dëgër minkum miithaqan xalisa noonu la ko alxuraan tudde lislaam di diine joo xam ne diine ju jub la joo xam ne pas-pas bu sell bi da koo jël organiser ko organiser ko ndax yëg gim yëg ne mënuñ koo ñàkk bàyyi ma yi soxla ko xayawaan yi soxla ko noonu itam la nit di soxlaa euh, moroomum nitam ci wàllu sëy ak ya nga xam ne moo ci aju moo tax lislaam organiser ko nag ndax bëgg mu nite bëgg bëgg mu nite defuñu ne xar yeeg bëy yi ci pëccëxoo waaye daf ñoo organiser organisation boo xam ne organisation bu am solo la moo tax àtte bi nga xam ne moom la say am boo ñëwee ci boroom xam-xam yi ak seeni wuute ma njëkk indi euh, lu mel ne almalikiya bu ñu waxee almalikiya mooy école école bi nga xam ne boroom xam-xam yi askanoo ci imam Malik ak moom ci boppam seeni àtte foofa lañ koy delloo ñoom dañoo indi attey sëy def ko lu mat juróomi xaaj maanaam juróomi ponk am na loo xam ne dañ koy wax al wujubu nga xamante ne sëy day war bu boobaa mel ne farata la léeg-léeg ñu tudde ko lu ñu sopp léeg-léeg ñu tudde ko lu xaraam léeg-léeg mu tudd lu dagan kon am na koo xam ne sëy farata la ci moom am koo xam ne dañ koo sopp ci moom rek am koo xam ne moom araam na ci moom am koo xam ne dafa dagan ci moom loolu dañ cee indi ay wuute bixtilaafil axwaal moo tax dañuy wax ne fa taaratan yakunu waajiban wa taaratan yakunu manduuban wa taaratan yakunu makruuhan wa taaratan yakunu xaraaman sëy am na ci wet goo xam ne da cay doon lu dagan da cay doon farata waajib da cay doon léeg-léeg luñ sopp da cay doon foo xam ne dañ ko sib waaye day doon foo xamante ne dafa araam cosaanul sëy nag mooy daa dagan cosaan li moom mooy dagan wala aslu fiihi al ibaha cosaan li moom mooy sëy ci boppam daa dagan cosaan li léegi nag xaalu nit ki ak ni nit ñi wuutee moo koy yóbbu ci yii ma wax yi ma wax moo tax ate bi day tuxu waaye ilaa bi sababi di lu dul ne euh, sabab yi nga xamante ne moo ñëw sabab yooyu moo koy moo koy jox euh, tolluwaay boobu ci nit ki mu war a doon ak li nga xam ne moo ci war ki nga xam ne sëy dañ koo sopp ci moom muy ay muy almandub moom la ñuy wax euh, mooy ki nga xam ne sariya dafa digle sëy digal ko ko xemmeem xem xemmeem sëy lool xemmeem sëy lool euh, xemmeem loolu xemmeem lu googu nga xam ne moom la sariya xemmeem lu sëy moo tax mu nekk mbir moo xam ne dañ koo sopp moom sëy nekk mbir moo xam ne sunna la moo tax dañoo sopp ci ki nga xam ne góor la goo xam ne euh, am na kattan am na kàttan mën naa dundal njabootam mën naa dundal njabootam maanaam am na am na kàttanuk sëy am na dépense wala kin walakin laa yaxaafu ala nafsihi min wuquuxi fi sina waaye moom ragalut ci boppam ne bu ñàkkee takk soxna dana ko yóbbu ci mu njaaloo wala mu def ya koy jiitu kooku sëy dañ koo sopp ci moom rek maanaam kii sëy nekkut loo xamante ne dañ naan farata ci moom lu mënta ñàkk la dañoo sopp ci bu dee góor gi nga xam ne dañ naan sëy dañ koo sopp ci moom sëy du farata ci moom mooy koo xam ne dëgg-dëgg am na kàttan Euh, am na dépense waaye moom même bu amu doon soxna xelam nekkut ci jigéen doonul koo xamante ne ñàkk soxna gi mën na ko yóbbu ci tàbbi ci njaaloo wala ya nga xam ne moo ko jiitu ñu ne dañ koo sopp ci moom waaye sëy nag dañ koo sopp ndax njariñi àdduna yi nga xam ne moo ci nekk njariñi àdduna yi nga xam ne moo ci nekk njariñ yu baree bari yoo xam ne moo ci nekk ak ay njariñi alaxira itam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ku xeeb sama sunna bokkoo ci man te daa waxoon ne sëy ci sama sunna la bokk ko ko xeeb bokkoo ci man moo tax dañ koo sopp ci moom bu toogoon sëyut du am benn bàkkaar waaye nag mi ngi mi ngi ñàkk tiyaaba ju bari mi ngi ñàkk tiyaaba ju baree baree bari ci ñàkk sëy gi loolu laa bëgg a wax ki nga xam ne nag sëy dafa nekk àq ci moom ki nga xam ne sëy dafa nekk àq ci moom mooy koo xamante ne maanaam dafa nekk farata ci moom mooy koo xamante ne nii am na kàttan ci sëy maanaam tëlewut nañ ma baal am na itam lu mu dundalee ki muy takk ba noppi mu ragal nag ci boppam ne moom mii kat bu tëkkut jabar mën na koo yóbbu ci mu njaaloo wala yeneen yu ni mel kooku takk jabar faratale ci moom dafa war ci moom dafa war ci moom li tax mu war ci moom mooy moom sëy bi day nekk ximaaya li diinihi wa siyaana li irdihi waaw sëy bi da koy aar da koy aaral diineem waaye day ñoŋal ab deram day tax du def mukk ci penc mi loo xam ne lu yàq aw askan la wala loo xamante ni lu yàq ab deram la ba noppi nag doon loo xam ne nag da koy aaral nag li nga xam ne mooy diineem kon kooku daa nekk koo xam ne sëy moom euh, àq la ci moom daa war ci moom ndax ku nekk amut sikki sàkk ci ne luy tax nit ki diineem mucc ab deram ñoŋ ñoŋ daa bokk ci yë gën a war ci dundu nit ki mu taxawee yooyu te bu fekkee ku góor kii Eh, laa yastatixu diini diinihi wa siyaanati irdihi illa bi ziwaaj kaana ziwaaju fi aqihi waajiban bu dee moom waaj yi daa doon koo xam ne mënta sàmm diineem mënta eh, ñoŋal ab deram lu ci sëy la ko mën a defee ndax bu dul loolu xelam dana ne ci leneen te mën naa dugg ci leneen te am na kàttanu mën a jox soxnaam ak ay am na kàttanu mën koo joxub dundu kon kooku takk soxna farata la ci moom ki nga xam ne takk soxna nag moom dafa araam ci moom moom wërta takk soxna wërta takk soxna mooy koo xam ne dafa am kàtt dafa ñàkk kàttanug sëy nga xam ne moom mënta joxe ak ay ca ba wan nafaxa amut ab dépense ñàkk alal tekki ñàkk alal tekki nga xam ne bu takkee soxna léegi moom moo koy loor moom mooy lor soxna si wa xaafa in tazawaja an yaqaa fi maxfuur nga xam ne bu takkee soxna mën naa mën naa ragal sax ci eh, lor soxna si ndax mënta fàggu wërsëg tële na ko tële na ko ba mënu koo fàggu tële na ko ba amul kàttanu eh, mën a sëy mën a sëy kooku nag moom bu boobaa bañ a takk soxna mooy li nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko digal ki nga xam ne nag dañ koo sib ci moom rek araamut waaye dañ koo sib ci moom mooy koo xam ne dafa ñàkk kàttan dafa ñàkk kàttan kàttan euh, ak wér euh, ci ci xeeti kàttan yi wala dafa ñàkk alal la bëgg a wax ba nga xam ne amut ab dépense waaye am na kàttanuk mën a wét li soxnaam ca lal ba euh, waaye ragalut nag ne moom mii bu duggut ci sëy day bi ci njaaloo kooku sëy dañ koo sib ci moom dañ ko sib ci moom wa yustahabbu lahu an yasbira xataa yajida nafaxa ala siwaaj ñu ne li gën ci moom mooy mu muñ mooy muñ ba euh, am loo xam ne moom la mën a dundale euh, soxnaam bu ko defee mu door a takk soxna wal yastaxfif allazina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuxniyahum allahu min fadlihi loolu la borom bi subhaanahu wa taala wax ci suuratu nuur na fegu ñi nga xamante ne amuñu luñ takkee soxna baba ba yàlla di leen jox ay xéewal euh, ci euh, aaya jooju la boroom xam-xam yi indi àtte bi sukkandiku ba indi àtte bi nga xam ne moom lañ indi ci bunt bu am solo boobu euh, naka noonu ki nga xam ne sib nañ ci moom mu takk jabar mooy koo xam ne man wajada nafaqa walakin faqada xudra ala al jima koo xam ne am na dépence bu mu dundale soxnaam waaye amut kàttanuk sëy amut kàttanuk sëy dafa tële yàlla nañ ci yàlla musal ñu ne kooku sib nañ ci moom mu takk soxna waaw xam ne yow mënaloo jigéen dara ci waxtaanu lal ngeen baal ma waaye nag xëy na am na dépense kooku sib nañ ci moom muy dem di takki bu fekkee dafa takkoon ba ci biir takk ga nag muy sëy ak moom mu daal ko waxuñ ko ne ko na nga wàcc soxna si waaye na waxtaan ak moom wa innama qul naa wala naqul yuxram fi aqihi dañoo wax ne dañ koo sib waaye waxuñ ne dafa araam li annahu na yakuna muxtaajan ilayhi li mu anissa ndax mën naa doon ku yittewoo ku koy wéttali ak ku koy jàppale ci organiser kër gi ak yeneen yu bari ci mbirum àdduna ndax sëy moom du mbirum lal ba dong du mbirum lal ba dong waaye sib nañ ko ndax kenn ci ñoom ñaar ku ne bu soxlaa waxtaanoo lal boobu da cee war a jot ndax yàlla da ko mooñaale doomu aadama ba noppi ubbi buntub sëy mu nekk bunt boo xam ne euh, dañ ko fay fàggoo waaye bu fekkoonte ne tey kum dab la li mu wax ni du tegtale ne mu continuer nekk ak dafa araam déedéet dafa kon dafa war a continuer nekk ak soxna si bu ko soxna si nangoo ndax mën nañoo soxlaante ci leneen lu dul loolu waaw nit day soxla lu ko ku ko ku ko wétali day soxla ku ko wétali moo tax sëy kon li nga ciy déggee mooy wéttalante la war a doon sëy wéet lente la war a doon am soxna ba noppi wéet wala am boroom kër ba noppi wéet ndax mënu leen a waxtaan waaw mënu leen a waxtaan bu ngeen waxtaanu tit wéet lente wéet lente bokkandoo organisation kër gi ak yi nga xam ne moo ci war yépp moo tax mu ne wa yajibu alayhi in araada ziwaaj an yuxbira man yaxtabaha li nafsihi bi xaalihi dañoo bëgg ci góor gi nga xam ne mënut euh, dafa tële bu demoon bu bëgg a takk soxna na ko leeralal ka mu bëgg a takk na ko xibaar mooy nañ ko waxtaane fa in radita bihi zawjan ala ma bihi fa ala barakatillah bu fekkente ne ñoom ñaan ñëpp dëppoo nañ ca bu boobaa ñu door a doxal ab sëy ci seen diggante e, ñaan borom bi mu defal leen barke mbokk yi loolu yenn àtte la yoo xam ne bëggoon naa ko indi ci li nga xam ne moo aju ci ab sëy ñu xam ne e, mbir la moo xam ne lislaam bàyyiwu ci dara waaye da koo jàngale leen lu nekk mu détaillé ko taxaw ca nam ca war a taxawe bu loolu jàllee ñu xam ne sëy dafa bari lool ay ngëneel yu ci nekk ngëneel yu baree baree baree baree baree bari ndax e, sunna la yoo xam ne dafa bokk ci sunna yi nga xam ne sunnanul fitra la maanaam dundub doomu aadama da koo soxla wa darura min daruratil xayaati ak yi nga xam ne mënta ñàkk ci dundug nit ki sëy mooy tax ñu mën a téye askan yi waxoon naa ko léegi sëy mooy tax famille man fee nekk sëy mooy tax ñu mën a ñoŋal suñu der ñu mën a ñoŋal suñu der ba suñu der kenn du ci teg lu ñaaw ndax bi nga bëggee jigéen jooy nekkal dem nga takki soxna jigéen bi bëggee góor gu muy nekkal takk nañ ko ñoom ñaar ñooñu loolu nekkul dox seen diggante sëy mooy li nga xamante ne day dëgëral diggante yi day dëgg day dëgëral diggante yi diggante diggante nit waaye diggante ay mbokk ndax famille ba nga takk soxna ca ñoom nga bokk say mbokk lañ léegi moom la alquran di wax ca suratul furqaan wa huwa alladi xalaqa min al basharan fa jaalahu nasaban wa sixra wa kaana rabbuka qadira waaw borom bi subhaanahu wa taala na mooy ki nga xam ne moo bind nit ci ndox moo jël ndox bind ci nit waaye nee na jël nag nit ñoo ñi sàkk ci seen biir ay famille def ñu itam ñuy gorolante te loolu lu yomb ci borom bi subhaanahu wa taala la dafa bokk ci kiimtaan yi nga xam ne kiimtaani yàlla la dafa bokk ci kiimtaan yi nga xam ne kiimtaani yàlla la yi nga xam ne day tegtale ak màggam yi nga xam ne day tegtale ak màggam suñ borom mi nga xam ne moo bind aadama ci ban bind xawaa def ko mu nekk soxnas aadama ngir ñuy wéttalante ngir ñuy wéttalante ñoom ñaar bokk dunduk àdduna gi ci bu neexee ak bu naqaree ci buñ amee aw yiw ak bu aw ay ñëwee mu jël leen ñoom ñaar bind ci mbindeef yépp ñu sosoo ci ñoom ndax lan nit ñi mën a doon ñoo xam ne ñooy dundal suuf si ñooy dundal suuf si mën a doon ñoo xamante ne ñooy yaatal askan yi illa an yarisa allahu al arda man alayha loolu kiimaanu borom bi subhaanahu taala la moo tax bàkkoo na ko ba tàyyi waxee nañu ko nu ne boo demee ca suratu xujuraat aaya ñett eh, wala borom bee ngay wax naan yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum shuhuban wa qabaila li taaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir borom bi subhaanahu wa taala nee na yéen nit ñi aaya fukk ak ñett yéen nit ñi yéen nit ñi man seen borom maa bind ngeen doon góor aku jigéen ma def leen ngeen nekk ay famille ma def leen ngen nekk ay giir def leen ngeen nekk ay askan ndax lan ngir ngeen xamante ngir ngeen bëggante ngir ngeen mën a dimbalante nga naan maag diw ñoo bokk maam maam ak sama maam ñoo bokk diw diwa ko jur diwa jur diw ñoom ñaar ñoo bokk diw moo leen jur xoolal loolu li taarafoo ngir ngeen mën a xamante ngir ngeen mën a dimbalante waaye bu leen natt mukk seen ngëneel ci wuuteeg askan yi waaw bu leen ci natt seenu ngëneel bu leen ci natt seenu raweel ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir mbokk yi sëy ci xéewali borom bi subhaanahu wa la bokk ngëneel yu baree bari moo ci nekk bu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla nañu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko daañu wéyal tomb waxtaan wi ñu nekk mu jëm ci wàllu sëy yi ak yi nga xam ne moo ci aju ñu jaajëfal leen bu baax jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee toogu bi mu ànd ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama nihaya li wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu